ñu door ak l'observateur mi dikk ñun ci mbiri xale bu jigéen bii doon défilé te far dee Eh, di Mati Mbodj Mati dee na ba ñu suul ko mais ay mbiram mi ngi sulee ko ci yenn anam la observateur xëy ñu xamal ne sûreté urbaine yi nga xam ne ñoom la ñu dénk enquête bi ñoo ngi koy wéyal def nañ sax ay jéego yu am solo am na ñaari nit ay góor yu ñu jàpp yoo xam ne Nigéria la ñu fekk baax jaaykat yu dorog la ñu woon yóbbu nañu leen police yéenekaay bi nañu Adja Diallo bi nga xam ne ñoo ngi ko jëloon tudd ne daal moom seetu ci ba fi nekk ni observateur ko ci taximan bi doon dawalal Mati dem moo koy yóbbu fu moo koy indi son taximan préféré Sénégal bi réer ne mes ne menten kenn gisu ko ñeneen ñaar ñu ñu gis observateur nañu kenn ki faru mbooj la woon jàpp nañu ko am na beneen waay boo xamante ne ji xaritam la woon jàpp nañu leen ba defeere leen waa sûreté urbaine ñoo leen jàpp kenn ki a Diagne la tudd ki ci des tee ngoom libération ne ko jarul nëbbu ay tur Thierry ngoom la moom moo nekkoon euh, faru Mati Mbodj ak kii di Mohamed Kama ñu gën koo xam ci caaya ñoom liñ leen di toppee moo di ba Mati Mbodj di sukkuraat ak di kaddkat yi dañu ko tiim jéemuñu ci dara yemuñu foofu ndax it li ñu naan ay preuve mu di firnde dañoo seet nu ñu ko doon jéem a kenn du ko gis loolee lañ leen di toppee muy non assistance en personne en danger ak dissimulation kaay bi nañu ñoom ñaar ñëpp nag ay ay boy plateau la tribune dellu si gën ci sori lim ñu xamal mooy ñaar ñooñe mu di Thierry ak ki nga xamante ne ji moo di Kama ñu gën koo xam ci caaya Interpol min nañu leen ñoom xam nañu yoonu kaso ne du guleet ñuy am lante ak yoon yéen bi nañu jàpp nañu leen eh, ñii di eh, élément yu commissaire Ibrahima Diop ci sûreté urbaine ñooy ñi leen jàpp ñi ñu jàppoon ba ñu waroon a janoo ak procureur bi démb te mujjul am las dikk na ci ñoom mu di imam nañ fa ñaari téléphone satellite mu di téléphone yi nga xamante ne ji boo koy jëfandikoo duñ la mën a déglu ñaari jigéen yi nga xamante ji nag jàpp nañ leen ca diwaanu Géejawaay ñoom fekk nañ ci ñoom dollar yu bari dollar yoo xamante ji xayma nañu ko eh, ci ñeenti téeméeri million ak juróom fukk ci suñu xaalis yéen bi tegal ñu ci ne ñoom ñaar ñooñee doon nañ déggante ak benn waay boo xamante ne ji ci terroriste bokk xaraam yi la seen euh, maanaam seen mag seen jëkkër ndax eh, kii di euh, joxaane journal bi nañu magu kenn ku jigéen ki la jëkkëru ku jigéen ki la joxaane moomee bañ leen jàppee yéen a kaay bi nañu loolee am na am na benn waaye bu ñu naan Daawda moom it Yoff la ñu ko jàppee moom nee magam ji bokkal ndey ak baay daa demoon ci waa bokk xaraam di leen xeexle ba foofee la ñu ko rayee yéen bi nañu ñoom seeta leen ci mbir mi du yomb leneen loolu it am na mooy démb ñoom juróom-ñaar yépp waroon nañoo jono ak procureur bi mais dañu leen ko dàqal retour parquet la ñu amee maître Nafissatou Diop notaire bi euh, Rewmi na ndax la am ci cabinet doy na waar yéen a kaay bi nañu lu jege genn wàllu milliard la ñu ko sàccal benn waaye bu ñu naan a jom ak kenn ku ñu naan o Ndiaye ñoom ñoo sàcc xaalis boobee 2012 la woon gars yi topp ko di ko lijjanti di ko lijjanti ba teg nañu leen loxo àtte leen démb juróom-ñaari fan ci weeru janvier ca la ñuy xam lan la yoon di wax ci seeni mbir mbirum président Lamine Diack euh, yéenekaay yu bëri xëy nañ ci dellu siwaat bokk na ci grand place du ci xët bu njëkk mi waaye ca wet ga nale ay kàddu yu bawoo ci Matar Ba mooy ministre des sports li mu xam le mooy askan wi yëpp ñoo ngi ci ginnaaw président Lamine Diack di ko jàppale le témoin mel na ko naan ko kon gën a la ndax jàpp nga ci loo xamul Diack doomam Massata Diack ñoom ñaar ñëpp yéenekaay kaay bi la ñuy la ñu njublangee ca fédération ba ndax nee nañu lu ëpp 373 millions nee nañu moom lañ leen versé benn ay bi nañu Massata Diack doomi Lamine Diack ak Habib Cissé mi nga xamante ne ji mooy conseiller juridique bu Lamine Diack moom lañ doon laaj benn athlète bu jigéen bu fekk baax Turquie am na beneen athlète bu jigéen boo xam ne Russie la dëkk moom daf ne woon day boole Pape Massata Diack ginnaaw bi ca la ko Massata Diack daal di remboursé li mu ko joxoon yéen a kaay bii di la quotidien nañu waa Ndiageen bàkk nañ jàkk ndax ginnaaw bi ñu jàppee seen baay am na rapport boo xamante ne ji génn na mu ngay tuumaal doom ja Pape Massata Diack ak rakki Pape Massata Diack di Khalil jàkk enquête moom sori wu ca Diack et fils test jërëjëf kooku mooy euh, Mamadou Mouhamed Ndiaye ci waa loolu mu indi ci revue de presse.